sonaara problème mu sumbulu Ablaye Diop xaas divorce am na amul ñenn ñi sax dem naa ba gis ñoo xam ne ñu ngi ciy jubilee ndeysaan kontaan ci ak di ci wax wax joo xamante ne que dëgg-dëgg rafetul wala jarukoon. sëñ Bour. alxuraan daf nañu. wala te jëssasu bu leen di gëstonte mu dellu wax ñu ne bu saay-saay ñëwee wax leen xibaar na ngeen Mm-hmm. alxuraan ëlbatiku ni euh, xaddi jàngalal laahu li kulli shay'in xadara ànd koo gis am na tàqalikoo mm-hmm. doom ak yaay lu ko gën a jege gisuma ko dañuy tàqalikoo mm-hmm. papa ak doom bis dina jot ñu tàqalikoo waaye jëkkër ak jabarit bis dina jot ñu tàqalikoo du loo nga xamante ni day gënal doomu aadama ndax suñu borom nee na lépp lu mu bind ci kaw suuf ak tas la ci gën a sib te ku mel ni Jóob xaas li mu wax nee na leer na jote day am mhm. ndax kat ba ci sangu-sang yi daan nañ am ak seeni soxna ab dig waaye sunu boroom bu bu bëggee walla mu nàmm ni diggante ba jeexagul du jeex kon gaa yi bàyyi leen lu xew ngeen profitoo ci wax ci luñ leen di xeebe ni ci wax mel dañoo kontaan nag waaw xam nga ku nekk ci géej waroo ree ku lab mhm. te benn mbir dafa am man ñii sëy di tas sax a ma gënal ñi mënta am sëy ak ñi hmm. mësta am sëy hmm. ndax képp ku dugg ci sëy leer na la ni bis biñ lay muur ngay dem boo matoon kenn du la muur ngay dem hmm. rawatina jigéen waaye ku ne xam na ni sumbul sëykat dëgg la ndax waajuram mu jigéen sëy rek la xam magam bu jigéen sëy rek la xam diggante nag sunu borom bu tuddul mu jeex doomu aadama bu ca sabablu ngir bëgg mu jeex ak doxe yéene sunu boroom bu ko jeexalul du jeex jërëjëf mbokk internet ya buur a nga leen di ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne soxna aada seexu yàlla bi Soxna Aada fajkatu aajo bi gars yi namoon nañ ko torop torop torop Soxna ñoo ngi lay nuyu bàyyi nga nuyu gars yi la Stan Sud Bipro إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمال الناس والصلاة والسلام على نبي المهتدى الحائل sëñ Bour maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. Soxna damay tàmbaleeg yow rek euh, ci mbiru. Diop Xaas Sumbulu euh, léeg-léeg sénégalais nga gis ci YouTube bi nit waxee ci ci façon bu ñaaw boo xam ne wala nga gis sëriñ bu fëgg dënam ne waxoon naa ko ne woon naa sëy bi du yàgg gis nañ ki dem benn comédien taxaw wax ci lu garaaw a garaaw ne yàlla bu mu neex neexati yàlla bu jibooti in jaa akum faasixun bi nabahin fatabayanu fa tabayyanu an tusbihum xawlan bi jahalati mhm. fa tusbihu ala ma fa'altu lahu najimin ah, waaw seetkat yi jàngi leen jamono bu la xibaar dikkalatee na nga tey da nga settantal ko mhm. waaye sëñ buur euh, yonent bi salaahu alayhi wa sallam dafa mës a wax xadis bu am solo mhm. dani albiru laa yublaa ak mbaax du ràpp waaye wa zambu laa yum saar kenn du ko fàtte waaye wadalaa laa yamutu faykat bi du dee kon mm-hmm. ihmal ma chexte defal lépp lu la sopp waaye kamaatu di nutu daanu loo leble rek lan lay fay mm-hmm. mbiru jóob xaas man loolu bu ma ko yëgee man mm-hmm. en tant que jullit ak li ñuy nawe jullit ndax réew mi kat dañuy woote ni ay jullit lañ mais dëggi-dëggi jullit yi nga xamante ni ñoom ñoo waral ñu naan jullit bëriwuñ fi du ma ne amuñu fi ndax ñi ngi fi ndax kat euh, bu dul woon ak alxuraan kon montagne yépp xar te fii mm. heure boo xëyee dégg koo nga xamante ni téye na alxuraan di ci def lu mucc ay mm. kon jullit yaa ngi fi waaye nañu maytu yàqante bi ci seen biir mm-hmm. nañu maytu ŋàññante bi ci seen biir li dal Jóob Xaas mën na dal sëriñ su bari mm-hmm. te bàyyi nga ni sëñ buur ñun sëriñ si ñoo gën a nekk en danger mm. waaw ci ñun ñi seen gat di lakk mm-hmm. ñuy daw di wuti suñuy kër ñuy fomp seen ay rangooñ suñu paree ñoom ñoo jël suñu vie di ko wili paane ci biti. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ buur bàyyi nga ni ñun ñi ñuy bokkal ceeb beeg dëwlin beeg ndox mi. Mm-hmm. ak dëkkuwaay suñu paree ñoom ñooy ëlbatiku dem yàq suñu vie. kon muy réew mu doy waar. réew moo xam dangay ragal sax def lu baax. waaye doomu aadama bu yàlla tàbbalee ci yow ak mbaax. hal jazaa'ul ihsaan ilal ihsaan lu baax lu baax a koy fay. bu njëkk loolu lañ daan wax. alxuraan it loolu la wax waaye gone yii ma gis léegi dañ fee bëgg a jële loolu mm-hmm. te nag ku leen topp doo liggéeyal yàlla te doo def lu baax li dal jóob xaas dal sumbulu jombu ma jombul keneen ak keneen mm-hmm. ndax kat sumbulu kuy ndeyam mm-hmm. ñu ni sëykat kuy magam ñu ni sëykat kon kooku Diop Xaasit di ku baax moom itam ndeysaan. man xamaluma ko lu bon. Mm, ñoom ñaar seen couple amoon complicité bu doy waar. benn mbir rek moo ma xaw a yéem ci côté Serigne si. dama koy njëkkee ci Jóob Xaas di ko njëpp njëkkee ci ñépp bépp mm. sëriñ mm. ay waaye nañu bëggante te yàlla tax mm. nañu soppante te yàlla tax nañuy waxante lu baax te yàlla tax nañuy leblante lu baax te yàlla tax ñii fëgg seen dën naan waxoon naa ko gisoon naa ko ak ñoo war a fonkante sëñ buur seetkat laa ñaankatu yàlla laa waaye nag wamaa ya'lamul ghaybi illallaa lii xam ëllëg li nga xam ni mooy xew sunu boroom képp a ko xam Mm-hmm. ñun nag suñu borom dëxëj na ci ñun loo nga xamante ni heure bu ñu xëyee ñun doomu aadama yi ñun jaam yu xeebu yi heure bu ñu suñu borom wanee dara wala mu tàppal dara ci suñu nopp yi bala ñoo am jàmm dinañ wane. Mm-hmm. dañoo nekkul jaam yi sax. Mm-hmm. dañoo nekkul jaam yu xelu suñu borom buy wax yaa ulil albaab borom xel yi lay wax. wallaahi wallaahi. suñu la mayee lépp it tax nga jël lépp. nañuy rafetal tey rafetante. su ma ku baax la de vraiment ku baax la. jigéen ju mën a sëy. Mhm. jigéen ju mën a muñ. jigéen joo nga xamante ni suñ naan ixdaay nisaa isaaniya moo nekkoon jigéeni roykaay. Mm. buñ damay jël man sumbulu am lu ma ci dund. Mm-hmm. ndax ndayam daan na dëbb ca loxoom ya. Mm-hmm. dugub ngir bàyyam bég lool. Mm-hmm. te dégg naa ne ndayam daan na root. bay taseeg ñu koy yan. waaye nag wamra atu zamaan yi cay sini jigéeni tey yi làmmañ ba nga xamante ne dañ cee waroon a jànge alxuraan lu ñaaw képp lañ ciy wax weli hmm. pande fii jàmbur ci biti loxo ya nga xamante ne dañ cee waroon di dëbbee dugub ngir bëggal seeni alaaji dañ koy dëpp ay paan di ca dëbb doomu lékkoon soxnaa da kon jot na jigéen ñi ñàkk seeni sëy ba cat yàqkat du ko du ko tas soxnaa am na solution ci loolu sëñ buur lii lan la. lii kànnaar la de wolof naan ko xomb. <laughs> lii lan la. kànnaar la de li dafa mel deru deru deru mbëtt la wala jaan. deru jaan deru yeew. Hmm. lii caaxaan mayew ko. lu weex taal la koy génne. xaalis weex taal. ku ko amul doo ko am waaye muy sa boroom kër. Mhm. muy say njëkke muy say goro kum ci doon ku la nar a jaaxal. jaaxalut leen. ci naka nan la koy defee gi boo ko ubbee. Mhm. soxla boo ci am. Mhm. bépp mbébét boo am. Mhm. danga koy ubbi diis ko ci ba pare. daal di koy tëj. ragat. boo ko xësee tëj yow ubbil say bët taxawal. xam nga soxna Ada moom nee na leen mi ngi site internet yi. ku ko woo mu jël la. ku ko message mu liir ko. fi mu dëkk la dëkk. bëggul sax toxu. namul pot toxu ndax dafa jëflanteeg ñoo nga xamante ne xam nga boo demee ba almaa yi di la wër. Mm-hmm. saoudien yi di la wër. nga di leen seetal ñuy jooy. Mm-hmm. barke yonent yàlla mu Muhammad mm-hmm. heure bi nga ñëw la boo ñëwaatoon beneen heure mën nga ko fay fekk te boobaa mën nga koo jël ndax nit preuve la bëgg. kon man nammuma dara. kilifa yi di la invité daal di son di la jël ay suite ay fan. dafa am loo nga xam nag doomu aadama jamono joo bàkkoo. sa loxo teg sa dënd rek yàlla lu la mayoon fa kon kii daal ku ko am njëkke bu lay sonal. goro goro bu la bañ. ah rakk jëkkër ju la sonal mm-hmm. tëj ko fii sëñ bu jàmm rek ngeen di am te yaakaar naa nag sunu borom lépp lu ñuy ñaan moo ni ñaan leen ma ma may leen. Mm-hmm. su ngeen ma ñaanul ma jëlee leen fi teg fi ñeneen ñu di ma ñaan ma di leen may. Sonaada seet gi nga lëmbëjee dëkk bi nii ba dof loo seetkat la. waaw loolu dina jaaxal ku ne te ku nekk <laughs> amoon oto keroog bi ngay dem ci jàngi mbay. sëñ buur seetkat yi li ñu mën ku ko mën dawal oto yu bari ah. waaw waaw dëgg la soxna aada du dóor de. wallaay wallaay dëgg la. soxna aada bu waree dem jënd ji ko oto léegi. ba mu hmm. yóbboo yaayam màkk yàggut de. wallaay dëgg la. waaye it njëg ga muy jëlaatam di ko dugal ci oto. Hmm. da koy def ci dëkkuwaayu ndayam. Hmm. dañuy gën a luye. dëgg la. dañuy gën a kër bokk bokkuloo. ndax kat. doom bala moo natt baatinam dëgg ci ndayam muy def lu mu bëgg ci ndayam mu yomb ko mm-hmm. te ba ma dalee bëgg ci moom ak di ci jëf nag ma ak ñi nga xam ni dañu naan sunu ndey bu ñu ko sunu boroom indi laatoon mm-hmm. ñu jaamu ko ay dëgg la ñaata yoon nga toog fii man la sëriñ Saaliw mu sell mu baax mi nekkoon sama wasila yaakaari jaam yi tey ak ëllëg mm-hmm. ba fu mu déggaan euh, rum naa sukkur yi nga yëg fu mu déggaan wakkaanaa xan nga yëg ko fu mu mm. déggaan maraaxib nga yëg ko mm. fu mu déggaan nuuru daare ni nga yëg ko e soxna Adama sell mi kooku lay roy de te dëgg la ci moom mm-hmm. dañ naan kat bëgg naa nabi tameloo ni moom gëm naa nabi tameloo ni moom Sonaada dafa nekkul ci débat terre à terre loolu duma ci wax sax nag Sonaada demul dikkul nag wootewuma benn mbootaayu diryanke mm-hmm. waaye jëmm jooju di mbay mm-hmm. ku muy yónni ngay bañ booba dangaa xamul Mm-hmm. man bu ma yabalee damay daw ba daanu. Mm-hmm. moo ma ko wan moo ma wan ngor moo ma wan lu tax ma jàpp ko. Mm-hmm. ndax sëñ buur man bu ma bonee. sa xaj sax su ma ko gisee war naa koo mën a. dëgg la dëgg la walaay jëng te sa njaboot sama njaboot la. walaay jëng dëgg kon bu ñu xewlee dama ciy dem. ki doon dawal oto bi de wax dëgg yàlla raq la ci man. te hmm. maag moom kenn xaaj kenn kenn duñu kenn duñu xaajale ndax karamam boo ko xoolee lexam yu rëy xool samay lex hmm. yaakaar naa même deret ji la et du ay débat sax et puis loolu du ay débat sax yow newoo foofu te yaa ngi ci soxlay jaam ñeeg leen di dimbali te sax nag dëgg yàlla soxna Aada ku ko xam-xam ko biir këram hmm. man ñëpp fi lañ may fekk yaay jaboot wutuma bës nag warumay soirée taxawaaluwuma dem ma dikkuma dañ sunu euh, alxuraan dafay wax ne wala tabarraj na tabari tabarijal jaaxiyatal ula mhm. bu leen di taxawaalu ko mel ni jigéenu mag ñu njëkk ñu réer mhm. mag ñu njëkk ña nag boo ko déggee ci olof dina xaw a doy waa mais ci taxawaalukat ya lañu wax mhm. na sax seeni biiri kër man loolu leer ma na ngeen sax seeni biiri na ngeen di jaamu yàlla na ngeen di bari lu ngeen def ay istixfaar zikrullah boo ko dee def nag ndeysaan sa xol bi alaa bi zikrillahi tatma'innal qulub ah! ay la illallah si de tudd yàlla rek da koo ñor. ba tax na hmm. dara àdduna bëgg a jëkku. Hmm. wallaay azim. waaye sëñ buur xam suñu xaaf yi nga xam ne temps yi mooy lëmbe dëkk. xam suñu xaaf. xam suñu xaaf. Hmm. dina ñàkk ci nit ba mu set. nga ubbeeku. nga ubbeeku. ku yor nga yor. ku yorul nga yor. secret bu doy waar. secret karaafil am naa ci yu yéeme. karaafil mooy lan xanaa da bu góor ak bu jigéen. yii ko xamul ci ñaan yàlla ràññeet la woo ko boo nee dangay ñaanal ay doomu adama waruñu laa gën a jaaxal ndax dëgg yàlla sëriñ si nañu soppante bëggante tey waxante lu baax ñiirul sëriñ sax nañu soppante bokk ndey bokk baay sëñ buur mhm. kon boog jarul yaatal wa axiru wan an alhamdulilah wasalaamualeykum wa rahmatullah